waaw loolu rek la woon. mais kon mën nañ jàpp ne ñi may laaj man. parce que hmm. li ma lay laaj yóbbante la. C221 mu ngi dund. te yéen ngi waaj. loo tey la gën a dund tey la gën a dëgër bu doon ñaari tànk la yor xamul leen ni léegi yor na juróom benni tànk. te ñi si nekkoon kenn manqué wu si ñëpp ah, gisaguma ko ci manqué ñëpp a ngi woy di ko gëm. ñëpp ngi woy di ko gëm ñi ko gëmoon xam nga nag boo wootee ñëppay ñëw ku nekk li ko indi man sama bopp nag laa xam nag. si ñu ñëwoon ana am na ñu retiré wu. gisum ko de. ok alors loolu dañuy may ñu ñu soobu ci beneen waxtaan parce que loolee gëm naa ne dina am liaison ak C221 mu di affaire Amir Abo bi xew léegi ñu tudd ci seen leader di Cheikh Yérim sekk loolee mbaa du dem ba taachal turu tour tour turu mouvement bi parce que la tudd ci mbiru abi abo euh, Amir Abo Mbàkke Mbàkke mu mel ni mbiru dóor la mbiru luubal la mbiru escroquerie ñu tudd ci seen leader Yérim sekk dem ba seen ko ci ab vidéo loolu du taasal liggéeyu C221. non non vidéo vidéo ak mbir mi nu mu demee carrément bu dee maanaam mbir moom moom yoonam da cee newul. lu tax. mbir moom kay Atépa gu jaabe lañ ci war a mën a maanaam bu dee ak njublang ak njuj njaaj. Hmm. Atépa lañ ci war a tudd ko Cheikh Yérim Seck. mais fa Atépa feeñ fa la Cheikh Yérim feeñ. waaw dégguma la moo tax di defal promotion waa joo xamante ne nee nañ dóorkat la. déglu ma Atépa gu jaabe laa la wax kay moom bu dee waaja moom dóor na kenn ëppale wu ko ci. xam man mën naa mais fii Yérim laay wax. muy seen leader charismatique xaaral wax la ki ko tuumaal ki ko tuumaal. doo ma tontul ci Yérim ba pare yow ko kan la Babacar Touré la. koo xam ne tàmmul wax dëgg. kooku nag ay waxam waruñu ci sori quand même. ah wax fii gars see. muy lan teg ngeer. muy lan ak lan. bëri na du dëgg moom. surtout ci mbiru Adji Sarr ak yu mel lu mu ci wax du dëgg. mbirum Adja lu mu ci wax du dëgg. mbir mi li mu ci wax du dëgg man Atépa Goudiaby bi muy woo Cheikh Yérim Seck. Hmm. man maa ngi toog téléphone bi seex ci ci oto bi da koy amplifier daf dañoo amoon fu ñu demoon bay ñëw bay dugg si Dakar mu woote moom moo wax seex jàpp nañ Amir moom moo wax seex ne pour mu wax booy gelongal yi nañ porter plainte Amir parce que Amir nag ñi mu wax ne da leen dóor bari bi mu coupé matul deux minutes am benn xaritu Amir bu woo seex ne ko jàppale ma ci sa booy pour ñu bañ a porter plainte kii Amir. booy seex yi mooy kan waa. mooy waa gelongal jàpp ci ñu bañ leen bañ ko porter plainte en attendant ñu régler problème Atepa après mu dinañ régler problème booy automatiquement bu ñu paree Matar Diop suba teel a ngi may dégg moo woowaat Cheikh Yérim pour di ko informer affaire bi Cheikh yëgu ci dara Cheikh wala mu ngi mel ne tey man ma boole laak seen bàyyi leen ngeen dund ay at wala ay weeri weer man yëgu ma yéen ngi mu ngi neex yëguma dara yëguma ma man maa ngi rek ci sama business yow nga xëy seen am ak yow problème nga ñëw nga ne ma noo yow la mais boo ma ko waxee ma saaga la dama naan la ba muy neex Atepa bi muy def bi muy tagg Amir boobu anam kon mi ngi neex ah dafa metti rek te moom léegi bi muy woo Cheikh Yérim léegi woo bi pour lan la woon lu tax woowul seex ne ko yow yaa ma boole kii ba mu escroc quand même mais man dégguma Atepa wax loolu quand même kon Babacar Touré bu mu nangu Atepa di ko saraxe bu dee moo ko wax loo bu mu ko nangu. na am crédibilité tuuti. mais ni ni nga raxasee Yérim est-ce que keneen mënu ko raxasee keneen parce que boo xoolee Yérim Seck ni mu taggee waa ji ci vidéo bi donc ñu gis ko dëgg ko mu nekk yëkkati ay kàddu yoo xamante ne daanaka peut-être mën nañ jàpp ne nuroo nag euh, ki nga xamante ne moom mooy kàddu yu Atepa yëkkati donc. loolu mën nañ xam man damaa fekkee. man problème bi yëguma woon nu mu demee damaa fekkee Atepa moo. ngeer yaa ngi fépp. parce que sëñ Saliou loolu moom man maa fekkee. waaw heure bi minute yi fi ñu jóge woon. Mm. man ak Cheikh Yérim Seck ñoo demoon seeti Ahmed Ndoye si bi xotaan ak Cheikh Thiam bi ñuy dëpp la kii woote bi ñu bi ñu woote sax ñu ngi biir si bokkotaan di dëpp di génn. waaw man li ma si jaax mooy Cheikh Yérim mi ñu gis ci vidéo muy tagg waaj. waaw d'accord ma ne la moo tax man la xamante ça n'a rien ak complice man tey yow xam nga nag xamoo la man donte xam naa la ci wax lu la neex mais xamoo ma la jubati <laughs> pourtant mën naa la boole kenn man ñaata nit a ngi fii ci presse bi dama leen di jël boole leen ak nit ñuy liggéey ak moom. Hmm. ñuy liggéey ak ñoom du jeex du xaaj nag. mën naa la limal boo yu bari nii dama damay gis ku bëgg jour euh, journaliste wax ma ko ma contacté la yónnee la numéro ne la xoolal diw mi ba xam seen mi sama seede la ci. Hmm. yàgg naa ko laaj ay numéro mu jox ma numéro kenn ma boole ko kenn. Hmm. mais man pare naa ca di quand même mais Atepa déggoo ñu ne la Amir jotoon na jox Atepa xaw ma 10 millions xaw ma dégg naa am ko koy wax. Hmm. ci benn business bu ñu seqoon est ba mu ko joxee Atepa Atepa wax na ko Cheikh Yérim Cheikh Yérim yëngu ko woon. Atepa bi muy defar plan boobu pour pour pour kër buuru buuru buuru euh, saw ñee. est-ce que Cheikh yëg na ko Cheikh yëgu ko ni kon léegi Cheikh nu mu ci mën a duggee yow li nga séq ak waa ji yëpp Cheikh moom xamu ci dara. mais est-ce que yoroo comme taxawaay. waxuma li ngay wax de déedéet maanaam li nga ko jiiñ ne day setal. déedéet li ngay wax waxuma ko de dama ne man damaa man damaa defiyee Babacar dama ne ko man Atepa bi muy woote maa ko fekkee. Hmm. te Atepa loolu yëpp bi mu amee seen diggante moom yoonam newu ci de te Amir PV d'audition yi xanaa gisoo ko. mais <laughs> Amir moom nee na moom seex wax dëgg yàlla moom yooyu yëpp seexu ko moom moom nee na seexut ak dara seex ci yooyu noonu affaire yi kii noonu moom mu munul dóor seex parce que seex nante la ñoom waa gelongal la joteel ñoom ñoom Moussa ñoom kii yàlla yàlla yërëm ña ca dem ak Matar Diop suba teel ak ñooñu yeneen gaay ak Atepa mais seex moom lam yam ca digganteeg moom mooy liggéey pare. yow ñi ki nga séq Atépa mi bi léegi Atépa bi muy tàgg musa bi muy tàgg kii nag bi muy tàgg nu mu tëdd sax. Amir hmm. kon boobu mi ngi neex. xam nga ah, yow xam nga mais mais yéen xam nga yow xam nga xam nga Atépa li mu def nii lu muy nuróol. Hmm. ñu may la jabar sëy bi neex ngay sëy sëy bi neex problème kenn déggu ko. waaw ah. mais sëy bi commencé naqari nga dem ne kan mag ma yoon yaa ma ko mayoon loolu mooy wax ji. Hmm. d' accord doxalal après dinañ dinañu gën a gën a xuusaat bu bu baax a baax ci ci ci wàllu woowu xam naa ne peut-être doo doo doo lool ak ak ak ak la ngay jiiñ Babacar Touré parce que yaa ngi jàpp ne dafay raxas ki nga xamante ne moo di Atepa yooyu itam gis nañ taxawaayu parce que tey par exemple. mais attends Babacar tegul sa loxo dara. lu dul ñaar ñi xamante ne kon kii ci complice la lool loolu doyul. Hmm. da ngay maanaam bi ñuy joxe xaalis bi diw fekke na ko pour nga nekk complice ci xaalis da ngay fekkee. wala nga proposer wala nga jël joxe wala nga influencer nit ki pour mu joxe wala nit ki tàggu la nga ne ko joxeel xam nga loolu mooy complice tàgguwoo ma yëgaloo ma yow daal ba ma la booleeg moom ngeen di liggéey mooy neex yëgu ma nga koy tàgg naan noo or la kii jamaa kii ku ba yow yëgu man yow yëpp yaay man man doxe naa sama yeneen nee naa la seex keroog lay doog xam ne amir daa dóor ñi jikko boobu bu ko xamoon ci moom kay xam nga ne loolu du du seq ak moom yooyu mais keroog la ko xam mais seex bi mu décorer sa téléphone yokk ko non dafa tiit. da ne kan Amir xaaral. xam nga nu nga wax da kan Amir. Atepa ne ko waaw maa xamee na Atepa Atepa laa la wax mu mu mu buggoon na booyee porte plainte Amir. booy gelongali booy gelongali mais booy gelongali seen benn copain mu kooku moom xaw ma turam moom moo woo seex ci saa si ne ko pour naan na ñaan. naanaam benn copain Amir moo woo Cheikh ne ko ñaanal ma booy xam nga booy bu ñu porté woon plainte day gën a garaaw léegi nag moo tax Babacar Touré dégg ko ci vidéo mu naan ko Amir tooñ na nga ñëw porté plainte di di woote wu naan na ñëpp ñëw xam nga loolu loolu jikkoy sax jullit jullit sax du def loolu cest à nit am problème ngay wëri ñeneen pour gën a yokk problème bi xam nga loolu yëfi yéeféer la loolu du yëfi du def loolu de léegi nag Cheikh jeu boobu lañ ko bëggoon a dugal. Hmm. c'est-à-dire comme am na influence ci booy ay booyam lañ. pour mu wax leen ñu ñëw yokk ci xar mi karab léegi nag seex ci la contact xam nga ñaar ñi décédé nañ kenn ki moom fi des gelangal si la contacté kenn ki ci saa si waxtaan ak moom wax ko li copain bee wax. kon mën nañ jàpp ne ba fii nii nii gelongal porté gul plainte. dégg gu ma ko def dégg gu ma ko te du ko def. parce que kee mu ngi ci poro te kee fay na adhé ba sax wax ci sax léegi wax may fay na ko xaalisam. mais problème mooy. yow ameel na ko la fay na léegi fi ne nii lu ci jar kaay leen porter plainte non problème bi mooy. ni ñu décrire Amir Abo. Ah. c'est-à-dire da doon defar image am pour mën a ndax ay nit. Ah, bokk na si ñu ñu tudd ma attends moom laa foofu laay waxee. bokk na si ñu ñu tudd. ñi fi nekkoon ci régime mu Macky Sall président Macky Sall bi mu fi nekk. léegi tey bu fekkente ne ab Abdou Nguer nekk na ku ñu xam ku am influence. mu benn escroc jóge fële lëkkaloog moom Abdou Nguer raxas ko ba mu set ne kii kat ko jub la xaritu buuru màkk bi la nangam sàngam ba nit mën a jàppandu ci loolu gëm ko. Ah. mais loolu est-ce que dina tax ñu mën a seetal Cheikh Yérim Seck. mi bañ a kaa mën a seetal nekk xaritu buuru màkk teew te jubadi jubadi gi kay la nëbbu. waaw moom laa wax. ma jubadi gi la waa ji wu ko. jubadi gi la nëbbu pour defar image am. ma ma ne cas bii daal yërëm man dal na ma fi. Hmm. boole naa feeg nit nit mu jël alalam. mais man maa dem pour c'est un gendarmerie porté ko plainte ñu jàpp ko ma seetal sama der dem sama yoon mais booba nag dafa fekkoon maa waxoon waa ji jox ko man maa ne woon waa ji jox ko xaalis bi. waaw ah. mais dégg nga fenn yii ñu ne yiri ma wax ne kii na ko jox Atepa Atepa moo war a bàyyi baabakar mi muy fooye Babacar nag moom. Hmm. moom moom comme moo nangu loolu garaawut moom moo nangu na nekk booy Atepa rek lu Atepa soxla bu ko mënta def defaloo ko ko wala lu Atepa du ko ko dëgg. est-ce que du journaliste bu def liggéeyam ba. am xibaar ban ban journaliste. waaw ah, Babacar Touré ak Atépa nga may wax ay loolu dépassé na journaliste ak lii mag ak rakk la kay loolu nekkatu journalisme. mu am parce li mu wax du dëgg nga li mu wax du dëgg xam nga Yérim mun du nekk di porter plainte ak di dépassé wàcce boppam. ah mais Yérim tamit taskatu xibaar la. am na ay plateforme yu mu mën a waxee tamit yooyu du ko nekk di kii PV de mission bi rek. wax na ne tubaab nee na kii dañ di rien consent. waaye PV bi wax na. abo auditionné ak Adepa miñ ñu auditionné amul kenn ci ñoom ñaar ku tudd Yirim bu dee benn sàmba booyee yor seen YouTube am nag di ko tudd euh, Yirim du ci tontu quand wax dëgg yàlla yow yéen ñaar ñi ko séq. Hmm. amul kenn ci yéen ñaar ku wax ne man maa def nangam d'accord. oui kon léegi man lu. Hmm. kooku taxawaayam nag ci réew mi wax dëgg yàlla loolu war nañ ko rafetlu quand même.